surtout Alaaji Maalik pur lañu surtout sëñ Babacar pur lañu parce que nag duñu bàyyi seen mbokkub taalibe ca taf rafet la ma def yow fa daal sëriñ bi ñu gërëm la sant la di ko gërëm aussi nag parce que ah, dafa da ngeen yoral daal soxna

sutura teraanga mm-hmm. jàmm yàlla nafal ko cat mm-hmm. yàlla uyal ko yàlla aar ko yàlla musal ko yàlla muccal ko yàlla na ko maamam Serigne Babacar maamam Alaaji Maalik mm-hmm. continuer tekkal ko parasol bi nga xam ne dana weeru ba rëcc ci yenn yi def mission te mu yàgg fi tëdd amiin merci